asalaamaaleykum mbokku internet yi nga xam ne yii yéen a taamu seen émission as waxtu askan wi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk si sa tour ak sa sant di leen ziara bu baax di leen jox seen wàccuwaay tey seen émission waxtu askan wi am mbégte ak bànneex di dalal benn responsable politique bu mag bu dëkk ci commune Dieuppeul Derklé xam naa dañ koy bàyyi rek moom mu présenté wu nuyoo su ko defee ñu doog a dugg ci émission bi sëñ bi ñu bàyyi ñu bàyyi la rek nga nuyoo présenté waale. jërëjëf merci beaucoup. di sant ak gërëm sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di leen nuyu di nuyu Sénégal di nuyu àdduna waaye di nuyu sama commune Diourbel Derklé di bëgg lool ci invitation bi nga xam ne waxtu askan wi def na ko kon di delloo sant di gërëm yàlla yàlla def jàmm di nuyu Sénégal ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm kon ni ngeen ko gisee kooku mooy sunu gan tey si émission waxtu askan wi ñu di koy wax Cheikh Ahmed Tidiane Diarisso Cheikh Ahmed Tidiane suñ buggee dugg rek rapidement ci li nga xam ne lii mooy sunu émission ñu ñëw rek si li nga xam ne lii mooy lëmbee àdduna di wàllu politique. dellu ci wàllu élection législative yi nga xam yi dañ kaa génn tey ñu gi bëggoon la laaj rek gannaaw résultat yi bi nga xam ne bii tamit ñi nga xam ne ñooy conseil constitutionnel joxe nañ les résultats officiels tey yow ban lecture nga am si si si si si maanaam si élection yooyu noonu. merci beaucoup jërëjëf euh, Djibi li nga xam ne moom laa am lu ma ci wax bu ma sañoon day waxtaan loo xam ne jotoon naa ci wax dootuma ci dellusiwaat. ndax yi nga xam ne moo indi gàllankoor yi yéen xam ngeen ko gis ngeen ko teg ngeen ci seeni bët li ngeen dégg ko ñun nag def nañ ci li ñu waroon ngir am lu ñuy moytu li ñu doon moytu nag dañ ko doon moytul suñu bopp di ko moytul Sénégal di ko moytul àdduna ndax am na lu ñu ci war te la ca waroon mooy def nañu ko ba dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin ndax bokk nañu nekk nañu ànd nañu ak ñi nga xam ne tey jii liggéey bi nga xam ne moom lañu sant pour war koo defal Sénégal pour sénégalais war a tànn ñu am suñu concitoyens yoo xam ne doon nañu lëmb réew mi ci wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw ak waxin woo xam ne ku leen ci toppoon. wax ju ñaaw bu demee nag. wax ju ñaaw mooy wax gis nga nit bu fekkee ne dafay wax lu dul dëgg ca moromam. Mhm. kooku wax jooju du mën a rafet. nit bu fekkee da nga fekk nit ku baax di ko dëkkal fu bon foo xam ne dëkku fa ba nit ñi di ko jéem a xoole loolu. loolu yàq doomu aadama la. Mhm. te nag yàlla dafa def ne ñu làngoo nag ñoo xam ne ñoom ci seen jëmmi bopp seen programme lépp moo doon wax lu ñaaw ci nit ki ba nit kooku kenn dootu ko nawloo. Mhm. dal nañu ci. alors loolu nag bu fekkoon ne dañu leen a toppoon ci réplique boobu yëf yi dina demee neneen kon il a ñu éviter loolu te loolu ñu ngi jotee ndigal loolu ci suñuy kilifa ci suñuy leader ñu amoon lu ñu sàkk woon ci ñun te loolu ñu sàkku ci ñun moom lañ ñu nawee ndax boo xoolee su région bi yépp lan la nawee Sénégal fi mu nekk nii mooy stabilité donc il a ñun aussi ñu liggéey ci loolu mën a toog ndax ñu mën a garder am stabilité boobu te yàlla defal nañu ko. mais mais garder stabilité bi tamit warul tax tamit ngeen bàyyi euh, ngeen perdre la bataille de la communication. parce que tamit bu doonee ña ngeen nekkal ñoom ñi ngi communiquer yéen seen wàllu bopp communiquer wu leen comme ni ñuy wax rek la nature a horreur du vide. merci beaucoup loolu aussi lu jar la lu jar la xëy na wax nañ ca waaye nañ ca waroon a waxee aussi waxuñ ca nañ ca waroon a waxee parce que quand même il ndax ñi nga xam ne ñoo doon yor communication président ñi nga xam ne ñoo doon wër président doon wax wax ji nga xam ne saa ñu ko soxla ñoo koy wax fañ ko war a waxee. Mhm. ñooñu seen jëmmi bopp ku ci mel ni Seydou Gueye. Mhm. ñooñu nga xam ne ñoo liggéey liggéey boobu. gisatuma ñu liggéey liggéey boobu. Mhm. donc damaa jàpp ni ñi doon waxal président. wër ko doon ko waxal. waxalatuñ ko. pour yow lan moo tax waral waxalatuñ ko. xëy na dañoo am xaalis. loolu rek laa gis ma sama atte dafay leer. parce que bu fekkee ne dañ laa jëloon wala mu am groupe boo xam ne dañoo toogoon. di wax ndax ñan nga xam ne ñoom lañu ñu làngal. ñoom ci wax la dëkk. mais nag nit ki bu ñu lay tuumaal war ngay dindi weddi ak di wax li nga xam ne par exemple mooy actualité ak di wax mais ñoom ña ko doon waxal ci remarque bi ma def te du man dong maa ko def ndax tout le parti ak ñi fi nekk ñëpp coalition bi teg na ci seen bët waxatuñu waxatuñu alors on a passé tout le temps à faire des des ay ay waxtaan fii ci wax no wax di du woon wax boo xam ne ci suñu wax bopp lay doon mais day wax boo xam ne dañ koo waroon a wax jàkkaarloog askan wi waxtaan ak askan wi ba ñu xam ne lii la ñee lu ñu wax ñu teg ko mais nag am na ci loo xam ne wax na ci mais wax ci daal nañ ko waroon a tontoo ak fa mu waroon a yem yemu fa kon yéen dafa mel ni tey euh, bataille de la communication bi mu doon wax léegi si kanam dafa mel ni loolu danga jàpp ne moo tax ngeen perte élection yi ñu génn bokk na ci bokk na ci lu ci bokk la mhm. lu ci bokk la mhm. lu ci bokk la parce que mooy li ma wax mhm. parce que wax ju ñaaw wax ju rafet ak ju yiw moo koy dindi waaye nag nit dana wax loo xam ne day mel ni ku la attaqué boo noppee xëy na xeex du am waaye nag waxam jam wax am na ñu koy garder yaakaar ne lool la parce que dem nañ ba ci élection yi bisu élection yi am na mag ñoo xam ne dañoo tere seeni doom ñu génn seen kër ndax yaakaar ne tey jii réew mi dana tàkk wala lenn te fekk na son excellence bi nga xam ne moom la ñuy nuyu monsieur Macky Sall le président de la république Sénégal wax na ak ñi nga xam ne ñooy suñu leader. Mhm. ba teg ñu ci yoon woo xam ne lépp loo xam ne day indi ñoom ñoom wala day indi coow rek nañu ko moytu. mais tey yaa ngi naan son excellence mais si loolu noonu yëpp lan moo si responsabilité ki nga ki xam ne kii mooy euh, seen ex euh, mooy njiitu réew mi di Macky sal parce que tamit ñun bi ñu jàngatee ni ñu defee investiture yi dafa mel ni dafa jël ay nitam teg fa fële indi ñeneen. waaw loolu am na ci. te loolu war nañ ko bàyyee xel ndax nit ki bu fekkee ne dangay ngay ànd ak ay nit xëy na bokku leen parti waaye yéen bokk réew mi te bokk li ngeen di liggéey kon ca lañ bokk waaye yow mi nga xam ne it da nga caa bokk nekk ca war nga caa feeñ kon loolu lu mën a bàyyi xel la daal coalition la waaye coalition Benno Bokk Yaakaar lañu wax du dëgg waaye coalition bi am na loo xam ne moo koy diriger ndax train mais am na machine bu koy xëcc machine bi koy xëcc nag APR la bu ca saful nag kon day am lu muy nuru loolu nan ko xoolaat bu baax li nga wax dëgg la du ma ko dindi te kenn du ko dindi machine buy daw la train buy daw la machine bi di APR mais bu ñu xoolee ca bopp machine ba APR safu ca donc dafa am lu muy nuru kooku nañ ko xoolaat saytuwaat ko. Mm-hmm. def ci ay jàngat mm-hmm. indi nu mu gën a gaawee solution mm-hmm. xam nga yaa ngi naan euh, li si ëpp APR la mais tey APR aussi tamit boo xoolee ci biir maanaam surtout si côté njiitu réew mi tey am na ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo yor euh, maanaam bureau politique am bu doonee mun nañ ko tuddee noonu tey jii ñooñu tamit lan moo nekkoon seen taxawaay ci élection yi. merci beaucoup bokk nañ ci lu yàqu ñoom. ah bon gis nga président wàccoo na ak ñun hmm. ndax moom mënut a sol dàllam fu nekk mu teg fa tànkam hmm. waaye fu ne teg na fa nit koo xam ne man ko fay représenté pour ñu mën a xam moom hmm. ku ci mel ni man bu ma sañee ne man bis bu nekk ma gis président ginnaaw bis bu nekk maa ngi gis DG Ababacar Sadikh Bèye kon man bis bu nekk maa ngi gis président nit nag bu fekkee dafa am fu ñu leen teg muy nos commissaires politiques ndax wax ji dañ koy wax mu jeex walla ñu bañ koo wax. waaw loolu lañ si jublu de nañ ko wax mu leer. man nag samay wax mënuma liyaar man damay wax li ma gis ak li fi ne. nos commissaires le ministre d'État Mbaye Ndiaye. le ministre Mahmoud Saleh. le ministre Mor Ngom. et le ministre Augustin Tine ñoom le président wóolu teg leen fa ñu koy saytu nanu moytu sama xarit sa xarit sama xarit sa xarit taxul président teg leen fi ndax ci yenn yi danga gis loo xam ne boo demee ba ci biir da ngay xam ne kii def ci joué boo xam ne sama xarit la joué ah bon waaw. Hmm. mooy par exemple ma jox la exemple. exemple waaw. fan yee ca ginnaaw avant élection yi woon nañu nu palais. Hmm. waaye booy woote palais di woote ci commune. Hmm. da ngay woote ña nekk ci commune ba dëkk ci commune ba tey liggéey ci commune ba. te muy dëgg. waaye bu fekkee da ngay convoqué koo xam ne 2014 ba léegi tegul tànkam ci biir commune bi xamul dara luy daw ci biir commune bi. lu dul deux mille dix neuf président waree romb mu dem ay jël gone ay gone fay leen jox leen ay banderole ne leen banderole yi na ngeen ko président bëgg yaakaar ne kii mi ngi koy liggéey banderole yooyu keroog man maa ko dagg sànni ko. banderole lan la woon noonu. mooy xam nga mooy li may wax mooy parce que boo ko liyaaree du sotti. Mhm. kooku banderole yooyu Kamal Thiam ko defoon mhm. jox ko gone. gone yi di ko yëkkati. mais moom responsable politique la foofu noonu. am na ci droit responsable politique. mais c'est son droit le plus légitime non non attends moom c'est un responsable politique au niveau de l'APR am na droit bu doonee tey njiitu réew bi mi ngi ñëw si biir commune am moom it mu manifester soutien am. à condition mu nekk ci commune bi di ko kan moo gis ci commune bi kan moo ko ba léegi kan moo ko gis ci commune bi benn yoon daal lañu ko séen. mooy bi président waree romb. ci élection deux mille dix neuf yi. mu fay gone yi defar ay pancarte. defar ay banderole. pour ñu wane ne moom mi ngi ci commune bi mais newul ci commune bi amul fenn fu mu taxaw ci commune bi. bon yow lan ngay lan ngay lan ooyee nekkul ci commune bi dafa dëkkul si commune bi wala dafa deful taxawaay si commune bi. parce que ñun for nañ ci wéyu béy que ne. ca référendum ya bokk na si responsable yi nga xam ni moo njëkk a yëkkati lu mu toll di téeméeri junni jox leen pour ngeen pour ngeen commencé. xam nga xam nga bu nu hmm. président wàccoon ak moom président wàccoon ak hmm. waaye nañ bàyyi di ndax président. Hmm. te liggéeyal ko. président li mu war a def def na ko. boole na nag askan wi pour ñu jàkkaarloog askan wi ànd ak askan wi liggéey askan wi. jàppale askan bi nañ ko defee ni mu ko bëggee ak ni ko waxee waaye naxe bi dafa ëpp nekkul ci commune bi amul lu muy liggéey ci commune bi jàppalewul commune bi deful dara ci commune bi non xam nga li muy yàq ci commune bi daal mhm. moo ëpp li muy def ci commune bi te du moom dong ah bon waaw ah, du moom dong yaa di seen responsable yoo xam ne président moo leen takkal li mu leen takkal mhm. di ay ndopp tànk te amul dara loo xam ne ñi ngi koy def ci commune bi lu dul topp ki nga xam ne moo nekk ci commune bi di defar commune bi di jàppale commune bi mhm. di fi def liggéey bu fi kenn mësta def mhm. nekk ci ay tànkam di ko yàq muy kan noonu muy Ababacar Sadikh moom de toute façon di dinañ si del dellusiwaat léegi noonu si côté Ababacar Sadikh mais ñi nga xam ne ñi da nga jàpp ne tey jii ñoom dañoo amul taxawaay si biir commune bi mais est-ce que du yéen waa APR comme ni koy nit ñi di waxee yéen da ngeen siis si seen biir ngeen di siisante est-ce que tamit loolu nekkul benn facteur blocage bon merci beaucoup siis bi ñuy wax ci affaire man gëw ma ko gëw ko parce que mbir mi tamit dafa neexul bi fi dara nekkulee ña ko sanc doon cotiser pour fal la ba nga falu bu fekkee ne ñoom dañoo toog gis ñeneen nit ñoo xam ne mosu ñoo bokk ci parti ñu yilif affaire yi téye ko ñoom ñu toog croiser les bu boobaa foog ñu yëngatu lii moo waral mbir mi mhm. li ñuy bañ nag mooy ku yëngatu wala ku def leen ñu jub accusé la ne la nangam ak nangam affaire siisu mhm. mais daf ci am ñoo xam ne. ah siisul mais tey d'après tamit euh, maanaam xibaar yi nga xam ni foor nañ ko ci biir commune bi euh, d'ailleurs même sax seen yenn alliés yi. sax mun naa wax waa AFP waa PS ay RTAS ñu bari ñoom jàpp nañ ni yéen da ngeen yaatalul daal seen biir. merci ñooñu de passage maa ngi leen di remercier parce que on a une belle coalition Benno Bokk Yaakaar fii dans la commune ànd ceeg ñoom di ci liggéey liggéey bu rafet di dellu di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay seen liggéey rafet na su ma ànd ak ñoom rafet na waaye siis bi ñuy wax ci APR na nga ko bàyyi parce que siisuñu. <coughs> si si góor bu ne boo amee sab aw waaw te ba nga koy takk yoroo dara mhm. fanaan ak moom ci néegu ñax mhm. mu tëdd ci basan nga dem ba takk ab ñaareel tabaxul ko kër dugal ko jëndal ko lal saa yi sëb sëy bu tasee ca aw ba yaa ko tas yow li nga wax dafa xaw philosophique trop ba mu ëpp en en en terme clair mooy. ñi ko sànc téye ko. Hmm. liggéey ko ba mu yegg fii bu leen kenn fàtte boo leen fàttee yi mi leen fàtte lu yàqu yow. Hmm. waaye daal fi may dellu si encore te di ko wax mooy c'est responsable c'est soit disant responsable. Hmm. parce que ci am na ci ñoo xam ne président teral na leen. ma bëgg président dégg ko nag du lenn lu ñuy liggéey ci commune bu ñu teew. ah doo leen gis duñu teew ñoom daal li ñuy bëgg mooy ànd ak seen xarit yooyu dem ci président bi remonté ñoom guy wala ñoom Dakar waaye ñoom i guy ñoom i Dakar waaw ñoom ñëpp la bu ko defee bu ñu ñëwee mooy seen parce que ñoo xam nañ ko ñi nga xam ne ci commune bi lañ nekk ci président teg jox leen ndombi ñoom xam nañ ko ñoom laay waxal nanu bàyyi ki ñuy indexé ndax kooku mi ngi liggéey li muy liggéey mais ñoom la leen war duñ ko def ñoom li ñuy jéem seet mooy lu ñu waxee foo ma duggoon da nga génne ma fa bu ma fa génne ko dan noo woo ñii ma la waxoon toog mooy ces commissaire la toog commissaire politique yi ñu toog ñun ñëpp bi ñu waxee ba noppi bi Kamal waxee la ma ko tontu ci seen kanam parce que Kamal bi mu ma nuyu dafa ne ma jaari soo ça va ma ne ko ça va mhm. ma gën naa laa gis de ça fait trois ans man mhm. ba je suis dans la waa moom il a parlé devant eux. Mm-hmm. man boo ma gëj gis trois ans te chaque jour maa ngi ci commune bi parce que newatoo ci commune bi mm-hmm. kon ma wax fa li nga xam ne mooy dëgg ci néegu biti bi léegi bi ñu convoqué waat pour dugg ca néeg biir ba jàkkaarloo président son excellence man dañu maa zappé ah woowaat kamal mm-hmm. mu acharné lu ko neex mu wax ko ci ki nga xam ne mooy DG te la fa wax lépp dara du ci dëgg. amee ah, yow noo xamee ne dafa acharné wu si donte ne yow ne comme que nekkoo foon. bu fa nekkul nag nekkuma ma nekk naa fa parce que am na ñu fa demoon. Mhm. am na mhm. fa demoon. dañoo ñëw nettali. waaw hmm. te lañ ma nettali. Mhm. nekkul lu ma bett parce que il devait pas être parce que nag bu fekkee da nga naan da ngay jubale mais ñan ngay jubale ak ñan lañ doon jubale. voilà bi ñu demee ci lan lañ doon wax les trois forces. Mhm. où sont les trois forces. waaw ouais, parce que yéen si biir commune bi c' est vrai que dafa am trois forces yi nga xam ni ñoo demoon si wàllu ñun ñu nekk ci commune bi. Mhm. bi ñuy def campagne de proximité di dox. Mhm. ñan la gis xam nga il faut pas que yow képp rek dong nga ñëw taxaw. ne je suis une force. te ca campagne locale ba nga xam ne passé na. ñi ngi gis ni yaa ngi dox mbooloo topp la ngay liggéey. waaye biñ la booleeg Babacar danga nga nay yàcc nay ja sax bàyyi ko lépp. mais Babacar tamit moom ci wàllu boppam ban taxawaay la amoon ci digganteem ak euh, ak ñooñu. def na ko ndax lu ñu ko sant na mu def ko mooy demal ànd ak say nawle fexeel ba jubóog nii fexeel ba lépp doon benn mu wàccee boppam nangu lépp def lépp ba ànd ak ñëpp. Mhm. lépp lu ko président sant suba ba ngoon ma taxaw fi taxawaay bu rafet. lépp li ko président sant ma nga ca. ma waaye lépp li président sant ñeneen ñi nekkul. néewul ca loolu nga bëgg wax. waaw hmm. mais président na fi na RG yi na ñuy xool li fi am. Hmm. xam nañ ko nañ koy rapporté nañ koy rapporté ñun amatuñu lu ñu wax commune Dieuppeul-Derklé hmm. ñun sant nañu président gërëm nañ ko. te nanu bàyyi xel nag waa danaa dellu si tuuti ci ginnaaw. Hmm. élection locale yi passé. day sax xam naa ne sax loolu mooy mooy joxe transition pour ñu mën a dugg sax si élection locale yi ma xam ne ma bàyyi la rek nga continuer nga xuus si. merci beaucoup élection locale yi passé hmm. malgré les résultats. Hmm. mais APR Dieuppeul Derklé est sorti premier du département. APR Derklé est sorti premier du département te gañewul commune am. nu mu lee nu maanaam noo koy. faram fàccee waaw parce que boo xoolee on a 38 pour cent. 38 pour cent parce que 5000 voix la am. 4999 mhm. voix. 38 pour cent. la APR am ci élection locale yi. dans la commune de Dieuppeul Derklé. boo xoolee. Mhm. moo ñu ci département bi. Mhm. APR jëppal Derklé moo ci jël bee. Hmm, d' ci département bi. Mhm. Ababacar Sadikh Bèye moo ci jël bee. Mhm. il faut que nit ñi xam loolu département bi xam loolu. c' dire DG. nekkatul un homme communal. nekkatul local. dootul national. mais international la. il faut que nit ñi xam loolu. xam liggéeyam te ñi nga xam ne ñoo fi nekk xam ne. yàllay tànn njiit bu ko président tànnee jiital nit ki ki mu jiital ñun ñëpp nañ ci ànd jàppale ko c'est que man am na fu ma bëgg ñëw tuuti surtout bu buñ delloo ci cadre comme ni nga ko waxee ci cadre local yi euh, mille 4999 voix d'ailleurs même bu ñu defee comparaison bi tuuti ñu delluwaat ci ginnaaw ak élection législative yi d'ailleurs 4900 yooyu ngeen amoon dafa gënaat wàcc. Mm-hmm. et pourtant il y avait deux forces encore yu nekkoon en présence. Mm-hmm. tey jii loolu. bon bon foofu lu tontu naa la fa tuuti wax nga deux forces man gisuma deux forces. Hmm. te nit ñi gisuñu deux forces parce que bu ñu demee aussi kenn gisu fi deux forces. ah bon nanu bàyyi naxante. jubóo bi ñuy wax jubo forme la mais dëgguwul hmm. te ay nit boo leen di jubóole ba ñu pare ci local yi la ñu war a woote def lañuy def. effectivement mais à 15 jour des élections nga naan jubale. dana tax sax am na électeurs yoo xam ne daanoon bokkoon ci yow dañu lay jéppi. wala ñu naan ñii lan la. xam nga ñii di tamante lan la. jubale boobu noonu tey normalement bu doonoon defoon ngeen ko ca élection locale ya tey mairie bi du leen woon rëcc. kon voilà. te à diir fi ñu war a defee duñ fa defee fi ñu war a wootee duñ fa wootee. ñi ñu war a woo duñ leen woo. Hmm. woo seen i xarit te ñañ yu woo bëgguñu ànd bi am. Hmm. ñañu woo bëgguñu ànd bi am. Mhm. parce que ñu ñuy woo ñoom lañ bëgg ñu jiital leen. Mhm. te ñooñu ñu bëgg ñu jiital leen mënunoo jiitu fii. Mhm. gis nga président. juumu. ah bon wàcce woon président jox na mu fii ci commune bi. lu mu mës am. président kim la jox sànq nee naa la nekkatu sax national mais international. waxuma di defar ci commune bi. mais hors de la commune. DG daf fay taxaw taxawaay boobu mucc ayib bërki démb ci mbënd mi cité des eaux mm-hmm. taw ba na fa def ñëpp gis nañ am na fa maire yu dem taxaw photo mm-hmm. mais moom dafa dem jënd ñaari moto pompe jox leen ko ay maire commune waaw waaw ah, parce que xam nga boo nee dafa am ay maire dañuy foog ne ay dëkkandoo yi nekk foofu noonu. waaye commune bi ma ne mooy Cheikh Gueye pour mu leer. Mm-hmm. dem taxaw ca. photo soli bot gis nga nit ñi nañu bàyyi ceenu jege te xool ceenu amul njëriñ ñaari nit lan yu bokk kii dafa liggéey ba ret ñu jox ko commune bi kii di liggéeyal Sénégal nekk ci bureau yi di ci def loo xam ne ci port bi jële ko fii yóbbu ko fii di def lu extraordinaire kooku bu xëyee mbirum Sénégal ak mbirum àdduna ci lay nekk di ko liggéey ba ngoon mu ñëw kii chômeur bu retraité la gagné. ah déet bu ñu chômeur bu retraité dama jum dama jum. <laughs> liggéeykat bu retraité la ah, nga voilà bu retraité la. Mhm. kon fi mu nekk nii ñu jox ko commune bi. Mhm. kon temps bi mu am. Mhm. bokkul ak temps bi am. mais njëriñ la kay am moom amu ko. ndax tey jii ci lee dem na photo soli bon mais kii jënd na ñaari moto pompe dégagé benn équipe boo xam ne c'est dirigé par Ablaye Faye ak ñeneen ñi mu àndal ñoom ñëpp ak ñoom Papis Aïdara muy GSE. Mhm. def ci liggéey bu extraordinaire. xam naa ñu fàttale ñu fàttali mbokk yi rek GSE boobu nga xam ne bi moom la tudd mooy Sénégal. Euh, euh, génération Sénégal émergente bi nga xam ne bi moom la Babacar Beye di jiite fii nii. ci biir commune Dieuppeul-Derklé ñu def ci liggéey bu extraordinaire. mais bi mu paree ci loolu mu xool ci titre ñi nga xam ne par exemple ñii ku ci nekk kër ku ci nekk. Mhm. mu yëkkati enveloppe bu cinquante mille teg ko ci sa loxo. Mhm. jàppale leen. ku ni kooku ko am ko jàpp loolu c'est hors commune biir commune bi nag ay jëfam kenn mënu ko wax waaw ah commune Dieuppeul Derklé boo gisee ñépp di ko xëccoo moom moo tax kenn mësu koo xool jumaa yi nga xam ne cinquante ans soixante ans mi ngi fi woon moo taxaw di ko yeggali église yi moom monde sportif tey boo demee la nga doon fekk Dakar sacré def na ko ci jardin jëppal yi terrain synthétique synthétique ñu defar ko ba mu rafet projecteurs yi lépp moo ko def jàppale nit taxaw ci xëyu ndaw yi bu baax ñi feebar mi ngi ci jàpp bu baax mm-hmm. bu tam xarit jotee mi ngi ci bu màggal jotee mu ngi ci bu gàmmu jotee mi ngi ci bu tabaski jotee mi ngi ci mais li ma gën a frappé mooy tabaski bii passé président ñu ngi lay santal ndax jëm ji nga nu jox mosunoo am ko mel ni moom kon danañ ko jàppee nu mu mës kenn mu ne fi may tàmbalee mooy nanu jàppale nit ñi waaye dama bëgg ngeen tàmbalee ko ci veuve yi macha allah taxaw naa ne ko DG loolu mooy mu ni ma nga dëggat nit ba borom këram faatu bàyyi ko njaboot gi dem leen ci ñooñu jox leen xar yi bu leen seet ku ànd ak man ak ku àndul ak man jox leen ñëpp te noonu la deme dans cette commune là mu pare ci loolu doog a seet ñeneen ñu jàppale leen waa ku mel ni kooku xale yi nga xam ne ñooy jàng keroog gis ngeen ko grand théâtre xam-xam rek moo ko ñor taxawaay bu rafet di jàppale nit ñi yëkkati commune est-ce que xam nga ne tey il a un bilan moom il peut présenter un bilan commune. non avant ñuy yegg sax ci bilan tey li nga jot a listé ci wàllu taxawaay mu nekk lu rafet macha allah euh, dafa mel ni tey delloowuñ naat bi xoromam. waaw kon may ñaan ndax kenn mëtul yàlla rek a mën di ko waxaat waa commune bi. ñu delloowaat yëf fii xoolaat mbir yi seetaat ki nga xam ne day doomi commune bi bokk ci ñoom juddee fi màggee fi jàngee fi yàlla teral ko mu ne lii ma teraanga gi ma suñu borom jox du ko def fenn fu du ci commune bi ma dëkk na ko bàyyi xel su ko neexoon port lañ ko din port loo xam ne y a plus de cent cinquante six ans d'existence Ababacar yi Bèye moo fa def lu kenn mësta def ci port bi ñëpp xam nañ ko projet bi gën a mag muy ndaay mu décroché ko loolu moom moo ko fi def kon la ko président sax def na ñi nekk ci suuf di ko yàq nag nañ toog man nag mais pourquoi pourquoi mu am nga naan dafa am ñu nekk ci ñi du ko yàq pourquoi ban intérêt. waaw mais intérêt bi mooy soxor. ak intérêt bi mooy ñoom poste boobu la bëgg. parce que gis nga ci sortie yi nit ñëpp def di mhm. naan poste bi nañ ko jox naan poste bi nañ ko jox poste bi président du ko jox tuuna de. <laughs> poste bi dafa téeméeri at ak juróom fukk doxul. <laughs> président teg ko ci loxo yoo xam ne bi mu ko tegee ci ay loxoom gis na ci ay résultats. Mhm. waa léegi damaa bëgg ñu laaj ndax président moom liggéeykat la bëgg wala koo xam ne buy saboté la bëgg. parce que attention. loolu moom waa askan askan wi dinañ si tontu ndax liggéeykat la soxla wala. waaw kay loolu laa bëgg caxaankat. président xoolaat parce que loolu la la ko askan askan wi liggéeykat lañ bëgg. Mhm. gis nga Ababacar Sadikh bi. Mhm. du politiciens yi rek ko bëgg de ñëpp ko bëgg. Mhm. liggéeykat yëpp ko bëgg kuy liggéey bëgg nga ko. parce que dafa def ay résultats. bu président doon tànn juróomi nit ñi nga xam ne ñoo fi def des résultats extraordinaires dans ce pays là. duñ waaye war koo sagoo war cee jàpp. waaye am ku mel ni kooku. ñii buñ demee ña ngay seet fu ñu jaar ci commissaire yooyu. yàq deram ñii seet yàq deram. ba bu toogee loolu dafay jeex gis nga fii président ko jox man day danaa la wax ñaari baat. président day ci audience bi ma amoon nag moom. moo ma booleeg moom. waaye mënutumaa tàggaleeg moom. ah bon déedéet. sois plus clair. c'est-à-dire moom ma booleeg moom waaye duutuma tàggaleeg moom. Mhm. nit di nga boole nit ak nit. dëgg la. waaye ki ma booleel. damaa mës a gis ku mel ni moom. ci liggéey maanute yiw rafet jikko mhm. ak def lu baax. Mhm. parce que nekkuma loo xam ne damay raconter loo xam ne. newul li may raconter Sénégal àdduna ñoo ci teg seen bët. nan nag boo ma boole ku mel noonu. mu def ci man loo xam ne aw ma ko woon. teg ma foo xam ne kenn ma foon a teg. Mhm. duutuma mais mais xam nga yaa ngi wax sànq ba léegi jëf yu baax yi mu def ainsi de euh, ñu gis léegi ñu bari si wàllu politiciens yi xëy na ñoom moment bi ñu war a def campagne duñ ko def xanaa ma gën ko leeral. tey jii bari na si ñoo xam na ñi donte ne dañuy am ay ndombo tànk mais dañuy bàyyi ba élection jot ñu doog a wàcc si askan wi pour jéem a demander seen ay suffrage ba tax na am na ñu bari ñoo xam ne dañuy jël xaalis di joxe jeunes yi di joxe mairie mais in bu ñu demee si ay élection résultats yi day nekk ay résultats yu catastrophique donc nit ñi dafa mel ni léegi ñoom. xaalis waaw loolu am na ñu koy def waaw. waaye moom deful loolu loolu tax ma ne. président bi ma boole moom mënatuma tàggale moom. ndax boole na ma ak jëm joo xam ne gis naa ci moom benn façon politique boo xam ne. muy yërmande ak dimbali nit ñi ak développement. koo xam ne ñiy jàng ku ci am bab ci commune bi. dana am appui bu mu la defal. ku ci présenté dossier boo xam ne njàng tax. dana am appui bu mu la defal pour jàppale la. waaw kooku yaakaar naa ne moom lañ bëgg. léegi lan mooy problème li ñuy wax. ak li ne comme yàlla ak yàlla lépp lu ko war mi ngi koy def di ñu jàppale di jàppale commune bi euh, xaarul ba élection jot muy def moom dafa dëkk ci def 2017 laa commencé ànd ak moom 2017 ba léegi ay jëfam jógul ci commune bi waa commune bi mën nañ koo àtte léegi nag le problème des gens xam nga mooy lan. wala le problème de nous politiciens xam nga mooy lan. Hmm. li tax gars yi di ko mere ne ko président yëg waa président yaw laay laaj. Hmm. Ababacar Sadikh Bèye da nga koo jox ci post bi. mu fiy liggéey ci port bi di liggéey Sénégal pour mu jël xaalis bi di ko distribuer politiciens yi wala pour mu tegal ko fi Sénégal di liggéey Sénégal loolu président laa koy laaj. Hmm. ndax nit day ñëw ni ma sax waa ji la de. waaye di joxe lu ah joxe xaalis xam nga gars yi tamit loolu Sénégal itam joxe xaalis nit ñi Sénégal ñoo doon sàkku bëgg liggéeykat bu wóor bëgg liggéeykat bu leer ñu ngi nii jàppal waaye amul kenn koo xam ne da ngay man ni ma sa waa ji la sa waa ji daal liggéeykat la sa waa daal bu Sénégal amoon ñett ñu mel ni moom sa waa ji daal nangam ak nangam waaye daal sa waa di joxe xaalis waaye léegi ñoom léegi de damay laaj damay laaj wala sax président dama tontu ci loolu. Mhm. ndax moom daf fi teg Ababacar Sadikh Bèye pour muy jël xaalis bi di ko distribuer nit ñi. Mhm. wala pour muy liggéey Sénégal ah, bu dee muy liggéey Sénégal résultat bi ñëpp gis nañ ko. Mhm. xaalis nag ku ko bëgg ko résultat bi ñëpp gis nañ ko waaye gisuñ ko ci biir commune am malheureusement. waaw mais mais ci biir commune am dëgg la parce que attention dem nañ fi élection présidentielle. 2019 pour une première dans l'histoire keroog ci 45 bureau de vote yëpp noo ko gañe hmm. mosu fee am kan la du moom waaye nag bi ñu fa jógee lan moo ci tegu di positionné wu nangam nangam dañuy ñëw di ànd ak moom mais ànd bi ñuy ànd ak moom du ànd bu dëgg hmm. il est temps hmm. ñu xoolaat defaraat li may sàkku ci président di ko sàkku ci suñu leader yi mooy nañu préparer nos femmes et nos réew mi toll na foo xam ne nañu préparer nos femmes et nos jeunes réew ñooñu rek la parce que fi mu nekk nii li ëpp ci population bi c'est les jeunes jeune nag moo mën a wax ak jeune waaye tam jeunes yi tamit am na ñoo xam ni seen taxawaay dafa des de du ñëpp waaw ah, du ñëpp bien sûr du ñëpp ak mag ñi sax mhm. ak mag ñi mais du ñëpp mais ñu jëm leen a encadrer ànd ak ñoom jiital leen te poste yi génn ak liy taxaw di feeñ ñu gis ci jeunes yi bu baax gis ci femmes yi buñ ko defee lépp defaruwaat te nañu nangu dogalu suñu borom kii nga xam ne moom lañu yàlla jox muy le DG du port de Dakar nekk le coordinateur de la coalition benn Bokk Yaakaar nekk le président de la génération Sénégal émergent ñoo ngay dem ñoom di critiquer ce mouvement là mais on doit beaucoup à ce mouvement ndax bi mu ñëwee seeti na ku ne tous les responsables waaye xam nga rek ku ci nekk yaa ngi siisu di def nii di def nii di def nii di def nii te bëggut a parparloo bëggut a def leen mu ne xaaral ma teg mouvement bi créé mais ce mouvement nous a rapporté gros ci élection yi ndax mouvement boobu ñi du woon politique ñépp jox nañ seen loxo am na ci dugg ci mouvement boobu mhm. am na ñoo xam ne ñun dañ leen doon seet seen kër ba ñuy politique lan la ñu doon def dañu doon gàntal loolu ñu dugg ñu ci politique mais nag bari na ñu topp si mouvement boobu mais gëmuñ mouvement bi de intérêt moo tax ñu dugg ci de àdduna léegi-léegi intérêt la àdduna léegi-léegi intérêt la julli gii ngay def sax intérêt la bu yàlla wàccoon ni la sama àjjana jooju tëjal naa la ko rab boobu moytu sa si jaada nga lem adduna dafa am loo xam ne nit ki day def loo xam ne yaakaar la ci am effectivement dëgg la waaye daal son excellence wàccu na waaye ces commissaires ñi nga xam ne ñooy convoqué nit ñi mhm. bu leen neexee buñ ma convoqué mhm. ah, yaa ngi xanaa da ngaa dinaa mer parce que parce que defuñ luy defar parce que di woo koo xam ne liggéeyulul président dara mhm. taxawulul président fenn mhm. ak ay responsable yoo xam ne ñi ngi leen di nommer di leen jox ay affaire yoo xam ne te jàppale ko mhm. lu dul bu élection yi jotee doo leen gis sax dans la commune doo leen gisaa xam nga lan la mbind mu bëri bi mbind mu rëy mi nañ ko bàyyi te wàcc ci terrain liggéey yi réunion yu bëri yi di tëju nañ ko bàyyi te wàcc wax ak askan bi DG daal man mooy li may waxaat maa ngi nuyu ñëpp ñi ma bokkal parti di nuyu toute la communauté euh, la euh, euh, benn bokk yaakaar la coalition benn bokk yaakaar mm-hmm. di nuyu ñëpp waaye di santaat di gërëm son excellence bu baax ci teral bi ñu teral mm-hmm. ndax teral nga mën te weesu nga jël ku mel ni Ababacar Sadikh Bèye jox na ko ànd na moom de te commune bi bëgg nañ ko de léegi léeg nag nu perte waaye nan xool ci ñuy gañe dara bu ñëw mu lang ca moom air bi nga xam ne moo xew ca lay ànd ba gañe ak nan ci def attention électorat bi mu am ci biir marché Castor kenn xamul ni mu toll ah foofu y a un transfert de plus mille 4000 électeurs Ah, mais transfert itam c' est de part et xam nga même même yéen seen leader tam def na ay transfert waaw ñun am na ñoo xam ne tey jii dañ leen di tuddee transfert parce que man tey jii eh, am naa kër Nord Foire hmm. sama njaboot nekk fa fii la ñuy voté xam nga loolu fii la ñu juddoo yooyu mën koo waxal mais transfert marché hmm. plus de 4000 électeurs ak marché bi nga xam ne hebdomadaire la moo doon marché bi nga xam ne tey jii. moom mooy voie bi nga xam ne moo dem ba front de terre. nga xam ne dañ ko tuddewul marché samedi. Cheikh Gueye transformé na ko marché altine ba dimanche nit amatul fu muy jàll mu boole ko marché samdi bi jël terminus bi def ko ay parc luy ko cent cinquante mille dëkk bi yëpp def ko marché. ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci marché yi ëpp nañu cinq mille personne mu xamal leen ni leen kii may jonganteel ak kii may xëccool. technocrate la ay pexeem yëpp mooy jëlee leen ci marché bi yéen a nag bu élection jotee bu ngeen ma voté loolu mu gagné jële leen ci marché bi ñooñu def ko benn bataille benn guerre ils ont tous voté. jour élection yi boo toogee ba 2 heures 14 heures 15 heures. képp ku dugg ci bureau vote doo ko mosoo koo gis ci dëkk bi mosoo koo gis ci commune bi y' a problème. kooku aussi il faut le souligner. waaye ñun commune Dieuppeul Derklé. ñi fa dëkk ñu ngi leen di sant di leen gërëm. DG nag du dellu benn yoon ginnaaw ci ànd bi mu àndoon ak commune bi mhm. ndax nee fii la juddoo fii la màggee fii la yaroo mhm. fii la jàngee mhm. tey nag maa ci yokk lépp lu baax ci fii moo ko fi def <laughs> école Ousmane Socé Diop salle informatique bi ne DG ko defar école bi ñuy wax école Mbalik te mu nekk Kastoor dem fa DG ko defar école primaire bi Ibrahima Koyta DG ko pavé ba mu yekk ci ñoom seen demande mu bëgg a defar miir bi Cheikh Gueye bañ ñëw denc ci karo yi bàyyi fa miir ba ba taw bi passé mhm. ci la miir bi daanu maaro day taali bu fekkoon suñu doom yi jàng na lay demee. mais tamit euh, waxtaan day neex borom kër parce que tamit yow bu doonee da nga bëgg liggéey Cheikh yi tamit ak nu mu munti demee moom mooy autorité si commune bu amee yéene defar est-ce que bu jël téléphone am wala mu daagu dem ba ci moom wax ak moom ñu waxtaan ba xool nag lañ koy defee ensemble. est que xam nga nit ñi. waaye tamit duñ jël lépp di ko bëgg a politiser rek. est-ce que xam nga ñi ñoo dul leeral wala cheikh moom moo dul leeral. Ah. na nga fi mu tontu la ca. même TV Castor. Mhm. bi nga xamee ne DG namm na ko. Mhm. mais dafa dem ci moom. cheikh ne ko rafetlu naa ko lool. Mhm. ah loolu kay amuñu luñ ciy teg. joxe son accord waaye verbal mm-hmm. bi ma déggee woon accord verbal bi laa mm-hmm. ne naa yaakaaruma ko ba dara desul lu dul defar bi Caterpillar yi ñëwee moo mm-hmm. xam ne c'est sérieux mu bañ parce que boobu moom xalaat na ne kii li muy wax xëy na day waxantu waaye mënu ko mais DG dafa am ay partenaires DG mi ngi dimbali ñu ñi parce que am na ñu mu àndal DG ñu ngi koy jëlal xale yi ñuy liggéey parce que am na ay partenaires kooku na ko nit ñi xam ngi ko mu mun dëppal dergale nammatuñu dara lépp luñ doon jooy président defal nañu ko waaye nag nañ taxaw du ku ñu sacrifié. du ku ñuy sacrifié. déedéet c'est-à-dire. c'est-à-dire nañu toogaat xool. Mhm. DG moom. Mhm. DG rek. DG rek. DG kese. Hmm. DG rek dong képp. xanaa dafa am looy njaw njortu. non njaaw njortu gi mooy li nit ñi wax laa bëgg ñu arrêté ko parce que dama ne port président dootu ko jox ko amul xam-xam. Hmm. mais loo xam ne ëpp na téeméeri at ak juróom fukk ñu koy yor. Hmm. mu dugg ci loxo yoo xam ne mu def ci résultat yoo xam ne kenn mësu koo gis. waaye président nag liggéeykat la doon wër. kon nañu seetaan mhm. santa mhm. te xam ne réew mi mhm. jàmm lañ fi ñaan ñi doon liggéey nañu jóg liggéey ñi doon waxal président nañu génn nañu jël jeunes yi mettre leen au devant de la jël femmes yi encadré leen ñu mën a waxtaan ak askan bi dimbale leen jàppale leen fépp foo xam ne dañ fay nase na fa jeunes yi di teew na fa femmes yi teew te ñu bàyyi jël lépp jox ko mag ñi ñu tëju di woo seeni xarit di ànd seeni xarit di def naka su dul noonu looloo fi am sama xarit sa xarit lépp lu ñuy def ñoom la ñuy woo bu tabaski jotare ñoom la ñuy woo ñoom la ñuy jox xar yi ñoom la ñuy jox lépp bu ceeb bi ñoom lañ koy jox te jëriñu fi dara ba ñaari nit duñ la ko indi de passage maa ngi nuyu honorable Ayoum mm. di bëgg loolu ci moom Mm-hmm. di nuyu ñëpp nag mm-hmm. waaye ku lim juum. Mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp. mu mel ni pratiquement tey jii lii lañ leen indiloon ci seen émission waxtu askan wi euh, xam naa balaa ñuy daaneel rek ñu may ñu rek tamit euh, ñu feddali suñu ay njaal si suñu ay confrères yoo xam ni si weekend bi yàlla dafa def ñu jiitu ki ci njëkk di Pedre nekkoon ca RTS. yàlla dogal moom it mu génn àdduna dëkkoon fii nii si biir commune Dieuppeul Derklé boole tamit ak ki nga xam ne kii mooy Jean Pierre Mané nekkoon tam journaliste fii si journal Observateur yàlla dogal moom it mu génn àdduna démb kon ñooñu ñëpp tey ñun ngi jël suñu njaal di ko jébbal maanaam ñi nga xam ne ñi ñoo jiite association de presse yëpp tamit euh, jébbal suñu njaal aussi tamit les patrons de presse di leen ñaanal yàlla yal na yàlla oyofal suuf seen kaw xam naa ne fii la ñuy yemale suñu kii waaye balaa ñuy tëj rek ñu bàyyi la rek nga joxe sa ay kàddu yu mujj. di sant di gërëm di ñaanal ñëpp di ñaan jàmm yal yàlla def jàmm ci Sénégal. def ko ci àdduna. yàlla sàmm ñëpp ci xol yi waaye di commune Dieuppeul Derklé di ko sàkkuwaat ci yéen di leen ko ñaanaan mm-hmm. ñu delloosiwaat xel yi ànd ak ki nga xam ne moom la ñu yàlla booleel mu amoon ñu njëriñ di ñu defale di ñu jàppale di jàppale ñëpp mm-hmm. am na lu mu bëggoon a fàtte te rek de passage mu wax ko gis nga bi élection yi jeexee scooter yi mu joxoon xale yi am na ñu ñëw naan ko ndax doo jël scooter yi mm-hmm. waaye tontu ba tontu ba. lu tax bu jël scooter yi pour. lan doo nangu scooter yi nga jëndaloon xale yi mu ne leen mais lu tax ma koy nangu mais xale yi ma jëndal scooter yi samay doom la yéen ñii am ngeen doom yoo xam ne su ngeen leen waxee lii ñu wax la ca des te man li ma def c'est mon devoir dans cette commune là mais laissez aux gens le droit mais xoolal ma xalaat bu rafet boobu hmm. lii la wax de hmm. leneen lu waay wax da koo waxal sa bopp waay waxul loolu hmm. nee na lépp lu muy def ci commune bi c'est son devoir waaye qu'on vous laisse avec vos droits yéen seen droit yooyu ñu ngi koy sàkku di leen ko ñaan ngeen xool ci liy taaral commune bi liy rafetal commune bi ak liy jëmale commune bi kanam allahumma salli mu mel ni tey jii lii leen indiloon ci seen émission waxtu askan bi ñu nekkoon ci ak euh, ki nga xam ni kii mooy Cheikh Ahmed Tidiane Diary Sow nekk mun naa ko ooyee un inconditionnel de Ababacar Sadikh Bèye parce que tey vraiment li ñu doon séentu si suñ émission yëpp am nañ ko ñu ngi koy sant si déplacement bi mu def ñëw bu fii seet si ñu pour ñu échanger si wàllu politique li nga xam ne lii mooy jëmale commune Dieuppeul Derklé kanam xam naa ñu ngi sant ñi équipe bi nga xam ne bii ñoo ñu doon accompagner si liggéey bi di nuyu Moussa Fall mi nga xam ne bii moo nekkoon ci caméra bi Alioune Sine à la régi au niveau de la réalisation ki nga xam ne kii mooy Rama Sané ñu di koy wax Thiaba Sané ñoom ñëpp ñoo jàppoon si liggéey bi am antu ñu ngi leen di jox dig daje beneen émission ak beneen invité si ay fan yu néew jërëjëf ci seen teewlu. Hmm? bi tey baax na ah ah non kon kon kon Babacar bi day gudd trop.